di leen baalu àq di leen ko baal di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi tabaarakallaahu di leen jox seen cër di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te ànd ak yàlla sàmb leen jiital ci kilifa aada yi itam fa tabaarakallaahu muy ñi ngànk réew mi ci wàllu administration doore ko ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi euh, wàcc ci gouvernement bi yëpp ba ñi nga xam ne ñoo ngànk administration bi jiitu ko fii ci Thiès euh, muy maire ville bu Thiès ak mbooleem maire commune yi tabaarakallaahu ak gouverneur préfet yi sous préfet commandant yi ñëpp rek tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel di leen ñaanal jàmm ak sutura fa tabaarakallaahu di leen wax ni yéen a ñëwati ngeen ci seen émission bi di seen émission Al Karim ngeen koy ànd ak seen xarit seen soppe oustaz Babacar kër Al Karim fa tabaarakallaahu ngeen xam ne nag émission bi toujours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ fiy waxtaane ak ay njàngaleem moom rasulillahi ndax itam njàngaleem yooyu day firi rek yi nga xam ni moom la yàlla wàcce ci moom muy alquranul karim ndax yàlla moo wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxewul dara bànneexu ba kenam lu mu wax rek moom rasulillahi man yàlla maa ko wax te itam maa ko waxyu tabaarakallahu waxyu la wax lu mu wax tabaarakallahu moo tax ma yàgg leen a wax ni sunu borom xam-xam bu mag boobu di imaamu malik fa tabaarakallahu bokk ci boroom xam-xam yi wax na ni bépp wax ak fu mu mën a jóge am na lu lees ci mën a càmbar bu laajee nangu ñu nangu ko bu laajee delloo ñu delloo ko ba mu des waxi borom rawdu bi muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ay waxam moom mooy ay waxi yàlla fa tabaarakallaahu euh, kon nag ay waxam moom rasulullahi sallallahu alayhi sallam moom la ñuy waxtaane tey nag émission bi tabaarakallaa danoo am gan gu mag nag gan ko màgg fa tabaarakallaahu ñu yàggoon koo mébét yàggoon koo bëgg fa tabaarakallaahu dalal fii ci Thiès Média waxtaan ak moom waaye yàlla mi ngi koy soog a dogal fa tabaarakallaahu gan googu nag muy sunu sëriñ daara fa tabaarakallaahu di sunu soppe di sunu xarit di suñu lépp muy al oustaz Seydi Cheikh Ahmada Tijani Kebe borom institut daara ji fa tabaarakallaahu di tabaarakallaahu jàngalekat waaye di yarkat fa tabaarakallaahu di borom xam-xam macha allahu te itam buñ demee ba ci biir insha allah di ngeen ci xam dara bu soobee yàlla ndax olof dafa wax ni wax feeñ arab wax ni takallam tooraf waxal rek ñu xam yaay kan tabaarakallaahu du jar ñu naan diw mooy diw wala may diw waxal rek ñu xam koo doon Serigne Cheikh alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullah Oustaz Babacar Euh, ginnaaw bi sante yàlla julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu ku nekk si turam ak santam di ziar ñëpp di leen balaax te di leen baal mm-hmm. di ñaan borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. suñu jotaay bi bokk si jotaay yi nga xamante ni yu mu gërëm la amiin lépp loo xamante ni ñu ngi ko fi yëkkati rek comme kàddu mu bokk ci yi nga xamante ni kàddu yu jariñ lay doon mm-hmm. euh, ñu ngi tamit jiital suñu nuyoo suñu sëriñ suñu ustaaz imam Babacar Fall macha allah Euh, di nuyu itam ñi nga xamante ni comme ni nga ko waxee mbooleem ñi nga xamante nii ñoom ñoo ŋànk fii nga xamante ni ñoom ñooy waa Thiès di nuyu mbooleem spectateur yi nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene seetaan émission bu mag bi comme ni nga ko waxee muy alkarim mm-hmm. ñu fas ko seeq ak yow mi nga xamante ni wax dëgg yàlla suñu sëriñ nga suñu xarit nga suñu suñu lépp nga mm-hmm. yàlla na borom subhanahu wa taala may ñu lépp lu ñu fi wax rek incha allah mu nekk loo xamante ni luy luy jariñ askan wi yëpp la mhm. comme ni nga ko waxee ñëpp nag xam ni ndongal daara laa rek boo xamante ni incha allah mhm. boo fas yéenee ñëw euh, tari ci li nga xamante ni nab nabi na ko ci àll wam mhm. incha allah lépp lu ciy jub mu nga xamante ni lu baax lay doon rek ñu sante ko borom bi subhanahu wa taala tabaarakallaahu incha allahu taala comme ni mu nuyoo nuyoo bu matale boobu Seyni Cheikh ñu ngi nuyu bu baax a baax ki nga xam ni cité na ko sànq fa tabaarakallaahu muy sunu imam di sunu sëriñ daara tabaarakallaahu muy imam Babacar Fall imaamu ratib bu jumaa ji ca Medina Fall tabaarakallaahu ca juuti ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom imam Babacar Fall ak njabootam yépp di leen ziar bu baax di nuyu waa daaray àjjuma wa jotaay daara ji ñi fay jang ci aljuma yeb fa ci imam babakar Fall eh, imam alhaji Kale Fall ñing koy nuyu bu baax momitam diko di ziar fa tabaarakallaahu di ko Serigne Cheikh tay nak dañoo bëgg waxtane tem bu am solo bo xamni bari na lo xamni ni na ci ci bop julit ñi te doonul lo xamni lu wara a la mais lu wara leer nañ la ci bop julit parce que dafa sensible muy walu fase parce que bu ñu duggee ci wàllu sëy tabaarakallaahu dañuy dem ci li nga xam ne mooy wàllu fase mm. ndax itam ñoom ñaar ñoo ànd ndax fii su fasey amee rek fala fala talaaq am mm. ba yàlla wàcceel ko saar moom fase mm. mu mel ni nag dañoo seetlu ni Sénégal dafa am na ñu koy defe ay defin yu baree baree baree bari bari yu wuute euh, Serigne Cheikh lan mooy fase alhamdulilah euh, comme li nga laaj lu am solo la moy baatu at-talaq moy lan manam, lan moy fase fasé lan lay tek ci mhm. euh li tax sax mu am solo ñu comprendre ko jangat ko moy mhm. wax bi sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an wax ni manam mhm. euh, nit dara wu ko ak abana ak arab yi moy ko xamanteni xam-xamam wul su fekke ni manam maîtriser wul luy wër lo ci walu mirage luy wër lo ci walu fase ak lo xamanteni mom moy wër wër lo ci acc euh lool nak li tax da gis ni jamono bi ñu toll dafa nekk xam-xam yoo xamante ni yu tumuranke la euh, nit ñi bàyyantuñ ci xel et pourtant lu ñuy dund la ci suñ biir société mm-hmm. euh, fase buñ dellu woon ci baat bi nga xamante ni maanaam baat bi luxa li muy tekki moom mooy attark bàyyi mooy al irsaal nga bàyyi mm-hmm. loolu mooy ab talaax moo tax baatu bu ñu nee diw jox nañ ko itlaax soo seetloo dañ naan mooy boyal nañ ko voilà ci mu mën a def ay mbir mm-hmm. mais bu fekkee dañu dellu ci charia baatu talaax li muy tekki mooy Euh, fas-fas bi nga xamante ni moo dox diggante góor ak jigéen mm-hmm. fecceeku gu muy fecceeku loolu la ñuy tuddee ab talaaq mm-hmm. euh, incha allah loolu dinañ ñëw ci biir euh, mm-hmm. incha allah pour leeral atte yeeg yu ni mel mais fase ci gàttal mooy sëy bi nga xamante ni moo dox ci diggante ñaari way dencante yi ñu dem ba jëmmi jamono ku góor ki ci boppam daal di ci génn ak ci anam yi nga xamante ni noonu la ci génne loolu la ñuy tuddee ab talaq ngir ne bu fekkee ku jigéen ki moo génn wala ci yeneeni façon am na yeneen tour yoo xamante ni daf koy am mais lii la ñuy tuddee talaq macha allah sëñ Cheikh ñaata façon fase la l'islam reconnaître euh, waaw fase day <laughs> maam fase bu ko doon euh, je pense que ni waxee ko noonu dina xaw a dina xaw compliqué mais mhm. mën nañu wax ni ginnaaw bu ñu xamee ah que ni lu ñu lu ñu yoonal la ginnaaw bu xamee atte yi parce que mhm. atte yi fase tamit dafa am mooy dafa am facette boo xamante ni léeg-léeg day nekk maanaam day day nekk loo xam lu ñu sopp la. moo tax ma doon moo tax ma doon ma doon ma doon wax ci. Uh-huh. ma doon laaj euh, façon facette yi nga xam ne ñoo am léegi benn bu ne àtteem. waaw xam nga maanaam boo xam bu ñuy bu ñuy jël facette. Mm-hmm. daan dañ koy xaaj. Mm-hmm. ñoom dañ naan dañuy xaaj facette. Mm-hmm. ci ay angle yu bari. maanaam dañ naan facette day su fekkee dañoo bëgg a xool angle siixa bi. mooy naka lañ koy waxee. loolu maanaam benn classification la maanaam nu ñu mën a tënkee facette la. bu boobaa dañ naan ah fase boo xamante ni euh, bind la wala fase boo xamante ni wax la mhm. noonu lañ mën a jëlaate fase tamit mhm. xaajaat ko ay xaaj mais ci beneen anam mhm. mooy fase boo xamante ni ci jamono bi ñu ko defee ak ci nombre bi ñu ko defee ñu ne kon fase bidaa ak fase sunna noonu lañ mën a xaajaate tamit fase ci yeneen façon ñu ne fase boo xamante ni bu nu bàyyi noonu kese la kenn wutalu ko chart kenn wutalu ko dara loolu moo tax par exemple pour nga mën a xaajaat le fase wax ni fase xaaj temps de xaaj la temps ñu mhm. xam ci ban angle la ñuy xoolee mhm. fase bi bu ñu ko mhm. xoolee ci angle niñ koy fasewee ay xaaj la suñu xoolee ci angle kañ la ñuy fase ay xaaj la bu xoolee ci angle fase bi ndax dañ ko wékk ci ay chartam déet loolu tamit ay xaaj la suñ Cheikh kañ la fase di tàbbi ndax ndax jigéen dina ni boroom këram fase ma mu ne ko fase naa la rek fase ma tàbbi wala boog boroom këram xool jigéen ba mu neex ko ni ko fase naa la ah léegi nag Fassé il faut ñu xam benn affaire mooy que ni. kenn moo am prérogative Fassé maanaam kenn moom la moo moom Fassé ci islam. Mhm. mooy borom kër. ah góor mooy fase góor kese. jigéen moom sañ jigéen mënut a Fassé jigéen du fase ci sëy moo tax may ma sama baat amul maanaam amul valeur juridique ci islam maanaam tekkiwu dara ci islam. may ma waaw ku mer la di wax. ñi nee ñetti Fassé la de. xaw ma may naa la baat may naa la sa baat loolu di laaj ñëw lol di laaj <laughs> ñëw waaw lol di laaj ñëw incha allah ko ah, wax de gars yi am na ñu koy wax naan mooy fasem batta mais lol di laaj ñëw incha allah mais <laughs> uh-huh. ala kulli xaal hmm. maanaam may ma sama baat jigéen buy wax may ma sama baat damaa bëgg a ci sëy bi fase hmm. ma xanaa jom nangam nangam hmm. yooyu wax ku mer la yooyu amul valeur juridique dëgg la loolu moo tax gis suñu réew yi Sénégal par exemple ñu baree bari dañuy jaawale dañuy gis ñu ne góor bi bu nee moom moo tëb daan ni jabaram fase la wuute ak bu jabar ji moo ñaan baat ba léeg-léeg ñu aj ci ni par exemple ku góor ki bu dee moo fase day bàyyi jabar ji yóbbu lépp bu dee jabar jee ñaan baat du yóbbu dara te loolu alors que non maanaam ci islam góor kese comme li yonent bi salaa salaam wax yonent bi nee na kii fase mooy ki gàddu ci yel bi ki jàpp ci yel bi te kooku mooy góor góor moo mën a fase wala mu jox ndigalu ñu fase mhm. moo tax kii fase du n'importe kii mhm. dafay nekk koo xamante ni moom moo takk takk bu wér mhm. ba pare day nekk mu kàllaf kii fase kii fase mhm. faaw mu nekk mu kalaf boo demee ci ngir imam malik faaw mu nekk mu kalaf mhm. imam shafii ñoom ñoo ci dugal ni bu fekk non astaghfirullah xanaa bi lay mhm. ñoom ñoo wax ni bu dee xale boo xamante ni ràññee na la mën nañoo bàyyi xel faseem mais ala kulli xaal amaana li gën a dëgër mooy al islam al yooyu yëpp faaw mu nekk ci ki nga xamante ni mooy fase mais aussi fekk ni moom moo takkoon soit moo takkoon wala mu joxe ànd ak xelam exactement wala boog moom moo joxe ndigal parce que ànd gi muy ànd xelam loolu dafa am yeneen yu muy impliqué joxe ndigal mooy lan mel ni ma amoon soxna rek daal ni léegi Babacar boo ko fasee mel na ni fase naa ko. Ah, <laughs> loolu mën naa ne de. <laughs> Lol man na nek wala sama papa yow yeugal ni bu la sama papa fase lol moy fase na la. Mhm. lol bis bu ko sama papa fase day nek fase. wala yu démé nono mhm. moy mais mbir mi man ma def tawkil ci affaire yi sinon mhm. ludul lol man kese man ma mun a fase. léegi nag am na mbir bu am solo bu mata a motax moo tax ma wax non ci walum am xel bi islam ak Lol da fay impliquer kon bu boba day am ay laaj yu bari yu juddou moy kon fase ki forcé ki forcé fasem ki joom fasem ki nga xamné ne xel mi newu fi fasem ki nga xamanteni da mandi fasem ki nga xamanteni par exemple manam yoy non yoy yep kon bu boba ay masala la xamanteni da fay judd wat pour ñu xol est-ce que parce que lool moy impliquer hmm. le fait que ñu ni faaw nit ki and xelam. Hmm. pour que fasé yoy mën dog par exemple mom la soxnam togn tay comme ni muy amé ni rek mënta muñ togn bi mu ni daf koy fasé légui passé mom nan la wara démé aha ndax danaan ko rek fasé na la wala fase nan la wara a demee bañ ni fase mi tàbbi ok moy procédure fasé bo xamanténi mom la sunna nangu hmm xamna peut-être lool nga bëgg wax wa procédure bi effectivement mhm. Mhm. Euh, léegi kon boba damay ñëw ci fasé ci façon bi mi amé jamono biñ koy waxé naka lañ koy waxé mhm. ban façon ban anam moy bi nga xam mom la charia préconiser pour que nit ke bu féké da fay fasé soxnam wa kay exactement ok moy que ni 1 برم سبحانه وتعالى دفع سورة الطلاق ني يو يلنتي في صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لول كملني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كملني إمام ابن منصور جن لنا كتي سننم وحني سيدنا عبد الله بن مسعود مو وحني وأح منام في عدتهن لمي في رموي نعين فاسه سخنائي تفكني دنيو سات تسد جين سات بولن سجوت أغنيم كن لول لمي تكيمويلن منو أمسا سخنا nga ni ko léegi fase naa la te fekk ni jamono bi nga koy fase moom day gis règle mhm. loolu soo ko defee yaa ngi def lu xaraam wute nag li sunna daganal mhm. li sunna te dénkaane mhm. kon faw mu nekk jamono boo xamante ni maanaam moom gisul règle wala boog mu fekk ni te li may wax noonu nag mooy ki nga xam ni jot nañoo jote ak moom léegi kon jigéen ñi jàppal dañ leen di séddale si ñett jigéen ñi ñett lañ jigéen bi nga war a fase ñetti façon jigéen lañ mooy kii day gis règle te jot ngaa jote ak moom day gis règle te jot nga jote ak moom. waaw maanaam takk nga ko. Mhm. consommé nga mariage bi. Mhm. te kuy gis règle la. benn googu waaw parce que ñett ñii ma lay wax ñett lañ ñoo xamante ni seeni idda dafa wute. Mhm. seeni idda daa wute. li tax seeni idda wute dinaa si ñëw. kon mooy ki nga takk consommé le mariage jote jote ak moom. kooku iddaam ñetti règle la. ki nga takk. consommer mariage consommer mariage koku te fekk ni day gis règle waaw koku idam ñetti règle la iddaam ñetti règle waaw mhm. ki nga tak te consommer wo mariage bi ci islam amul idda fasame day day c'est automatique day jeex ci sasi amul idda mhm. ki nga tak te fekk ni bing ko bëgge fase da ëmb mhm. koku idam moy bu amé dom ki nga tak fekk ni da du gis règle mom ci ay weer lay sukkandi koku idam ñetti weer la ñom ñet ñi ñep kenn ku nek da am jamono bu la islam di wax ni la man nga ko ci effacer sans problème waaw léegi léegi man legi man suma comprendre batu edda man batu edda la la la bëgg comprendre ba xam tay ki nga wax ni tay ñett règle moy iddaam ndax day dem ba ñett règle yoy jeex fase mi soga tabbi mu mu am ben fase wala avant ñett règle yi di jeex man na ci am ben fase ak ki nga xam dafa ëmb ak yu mel dedet xola so xasse fasé fase mhm. idda maanaam fase bi tabbi na fasa bi tàbbi na voilà mhm. léegi nag idda ji mhm. daf lay jox possibilité wu nga mën koo récupérer laala allah yuhdisu baada dhalika amra loolu mooy xikka xikma wu idda léegi boo ko récupéré waatee ci biir idda bi teewul am na benn teewul am nga benn fase maanaam fase bu xasee jóg mhm. boo xasee ni jigéen ji fase naa la konte nañ benn ok nañ benn léegi nag maa ngi doon ñëw léegi nii ci ban anam nga koy fase ban anam waaw très bu dee ki nga xamante nii moom jotoo consommé mariage bi xam nga wax naa la amul idda. waaw kooku heure bu la neexee fasel même bu dee ci biir règle la da baax na. tey par exemple yow yaa ngi tukki bàyyi fii takk takk yónnee. am ah. am koo takk. waaw euh, léegi yow ba tey ñëwagoo gu leen. waaw kooku bëgg koo fase ci diggante bi. waaw kenn xool xooloo ma ndax mu ngi gis règle am déet naa ko fase ci saa su ma neexee. su la neexee. Mhm. est que loolu leer na. leer na muy benn benn. keneen mooy ki nga xamante ni daa ëmb. Mhm. kooku heure bu ma neexee laa koy fase tamit. Hmm, ci biir ëmb bi ci biir ëmb bi. Hmm. kon li ñuy wax naan biir ëmb kenn du ci fase. Hmm. loolu peut-être dañoo demee émotion. mais ci islam biir ëmb dañ ciy fase biir ëmb mënuñu cee takk waaye nañ cee fase. ok loolu leer na. moo tax yonent bi salaa salaam ci xadis Seydina Abdullah ibn Omar bi nga xamante ni bokk na ci yenn riwaayaat yi. yonent bi salaa salaam daf ni ko jëlaatal sa soxna. bis bu demee ba règle yi dagg nga doo koo fase te fekk jote woo ci ak moom wala mu ëmb. bu demee ba règle yi dagg. waaw wala mu ëmb wala mu ëmb. waaw mhm. kon bu ëmbee leeral naa. cadre ki ëmb mën nañ ci ëmb. exactement. Mhm. Mhm. ki nga xamante ni moom du gis règle maanaam du gis règle. moom ñetti weer lay daw. kooku it heure bu la neexee nga fase ko mu tàmbali ñetti weer. kon dañ ciy gisee ne li ñuy sàmmonteel waxtu wi ngay iddaw mooy règle yi ak idda bi maanaam waxtu wi ngay fase mooy règle yi ak idda bi parce que iddaw ki nga xamante ni danga nga consommé mariage am te muy gis règle. waaw moom ci règle yi la dépendre. ci règle yi ñetti règle ñetti la salaasa da quru boro xam ne wute mm-hmm. ci ndax xayd la ñu wax wala tóor la ñuy wax mm-hmm. ndax règle la wala set la mm-hmm. kon bu boobaa kon fase na mooy sama soxna si nga xam ni te boobu moo ci gën a compliqué parce que ñeneen ñett ñu heure bu ma neexee laay fase sama soxna si nga xam ni j'ai consommé le mariage consommé naa mariage bi maanaam jot naa jote ak moom ci mariage bi ma bëgg ko fase bu nekkee ci période règle duma ko fase su ma ko fasee loolu bidaa la damay bàyyi kon ba réglam jeex su réglam jeexee itam su dee xas naa fi jote ak moom duma ko fase damay bàyyi ba mu gisaat régle ba mu daggaat kon man ci biir set kese laa mën a fase te fekk ni jotuma ci jote ak moom kii gis règle daal faaw nga bàyyi ba mu gis règle ba laablu ba set. waaw te bul jote ak moom kii moom dara jotu ko. voilà te bul jote ak moom te bul ak moom nga nga nga fase ko. nga doo ko fase kon kenn amul droit par exemple joteeg sa soxna gisa gisaatagul régle nga fase ko. mënta ne. boo ko defee fasem bidaa la. fasem bidaa mooy lan. Oh. mooy fasem moo xam da nga ci am bàkkaar. daa xaram. Mm-hmm. mais maanaam fasem mu wuuteeg sunna la. mais léegi nag ndax day tàbbi. ahankay day tàbbi. Ah. jumhurul ulama jamaahir sax. maanaam boo demee mbooleem ñeenti ngiir yi dañoo jàpp ni ahankay day tàbbi. ñu ni leen la mooy seen dalil ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi muy wax seydna Abdullah ibn Umar dafa ni ko. Mm-hmm. delloosi ko defal fayli. Mm-hmm. ñu ne bu dul woon fase kon du wax fayli. dëgg la dëgg la c'est kon fase la. waaye nag boo demee ci zahiri yi ak ñenn ci ba xam ne dañoo jàpp ni donte nag maanaam maanaam xilaaf bu néew la mm. ñoom jàpp nañu ni déedéet comme da def lu xaraam yëf yi du tàbbi mais ala kulli xaal amaan na li gën a dëgër ci masala bi mm. mooy day tàbbi fase nga ko mooy fase ma day tàbbi waaw day léegi léegi euh, sëñ Cheikh mm. comme leeral nga leeral nga fase yi leeral nga léegi léegi ki nga xam ne dafa ëmb waaw tey parce que fi ma bëgg a laaja foofu mooy tey ki nga xam ni ki nga xam ni dafa ëmb léegi xam nga ki nga xam ni tey euh, ci ñetti règle lay daw wala ci ñetti weer mhm. bu ñetti règle ya jeexee wala ñetti weer jeex dañuy takkaat mhm. léegi ki nga xam ne dafa ëmb ndax ci biir ëmb bi yëpp biir neuf mois par exemple mu ëmb am deux mois trois mois nga nga fase nga fase ko mais bañ koy fase xam nañ dafa ëmb mhm. léegi kooku bi mooy iddaam léegi ci biir ëmb bi yëpp ndax ndax saa yu ko neexee ci biir ëmb bi mën na ko fay di mën na ko fay di wala bu passé ñetti weer da koy takkaat léegi très bien mais dama am benn mbir bu am solo fii nii Euh, juste avant may ñew ci question bi ma lañ ni parce que lu am solo la xam nga sànq bi ma wax ci fasem sunna bi mm-hmm. Mm-hmm. dama wax rek ci kañ moy mm-hmm. bu mu gis règle affaire yoy mais dafa am benen affaire aussi bu am solo moy baña wax ki ngay fase manam ci benn fase bi nga bañ ci def plusieurs fase fase na la fase na la fase na la fase na la loolu boko ko da nga am bakkar manam lu haram la loolu mënoo ko wax ci benn fase manam fasé bid'a la fasé sunna moy sa jabar mu fekk ni réglam set na mhm. set na jote woo ak moom mhm. nga ne ko fase naa la benn yoon mhm. loolu mooy fasem sunna ba pare nga commencé wàññi idda bi te it bul ko génnee kër gi <laughs> bul ko génnee kër gi kay laa toxrijoon na fii même bu yóotihin na mais fii sëñ Cheikh da ah. ngay gis da ngay gis ku fase ku fase jigéen maanaam ndaw si ci boppam bu ñu ndaw si ci boppam ne naa la moom mooy dem seen waa kër seen waa kër ci seen bopp ñooy gurguroo ñëw <laughs> indi ay oto ak ay sareet ak lu ne non loolu day am ñii di dajji lal bi ñii di dajji armoire bi non loolu day am ñii di diri photo yi non loolu njum day xam leen leen génnee seen kër yi mm-hmm. kon soxna si amul droit génn yow it mm-hmm. amoo droit génnee ko illaa an yaatina comme ni ñu ko mm-hmm. xamee lu dul ni am na vraiment maanaam dëkkaale gi mënatu la nekk ñaawteef am na wala yu demee noonu mhm. su loolu kenn warul kenn mhm. warul génne par exemple soxna si mhm. léegi moo tax foofu dafa am benn affaire bu am solo bu ci am moo tax tamit loolu lu mat a leeral la waaw liñ naan boo fasee da nga fiy bàyyi kii bu dee moo ñaan baat day yóbbu loolu amul ci islam islam nit ku ne li nga moom nga yóbbu ah léegi léegi man léegi man mi nga xam ne maa ma takk jabar mhm. euh, maa takk jabar léegi bi ma takkee jabar fekk après ma dem jënd sama lal coiffeuse armoire télé yooyu yëpp mhm. léegi kon yow moomu ki def ki am loolu noonu bu fasee bu fasee léegi ndaw si ndaw si amul droit yóbbu lal bi déedéet su fekkee ne waa ji mayu ko léegi nag mu des benn mbir mhm. mooy urfu day attee Moy lan moy lan lolou la tuddé usé coutume moy lan la jëfëndiko ci dëkk bi mhm. bu féké dëkk bi ni jëfëndiko wé moy bo také jabar ba paré jënd la lak armoire soxna sé ko mom d'habitude lol même bu doon mo la ñaan ba da ko yóbbu parce que non la jëfëndiko wé te loolu lañ xam yow boo jënd sax da nga koy ko soxna ci nga laal bima la wutal waye nak su fekkoon ni lolou léro même xaru tabaski yi noonu la ñuy oh, <laughs> dafa doy mais bu fekkoon nak <laughs> amon nga ko avant moy yow ma jënd <laughs> moy yow jëndoon nga la lak armoire avant ngay tak jabar yooyu yëpp ne soxna si dikki wo ko may nga ko dara xewul nga xey mo xam ya ko fase mo xam mom mo ñaan bat ñoo ci yam du yobbu dara lu limu momal bopam nit ki alalam la yobbu te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni jullit bu nek da haram ci moromu julitam muy jël alalam wala bok muy tour deretam wala bok muy yak deram wallahu taala alam waaw kay legui euh, sa question waaw ci walu ëmb bi <laughs> ay jël lol tam man na ne parce que manam tank sànq idda ji jeexul comme li mooy idda ji waaw parce que mm-hmm. borom subhaanahu wa taala damay wax ni mm-hmm. idda balax na la mm-hmm. ajalahun na la wax mooy bu idda ji jubsee firiwul bu jotee ah, bu jubsee ngeen aha bu jeexu idda gi bu jubsee mooy mooy ajal bi bu fekkee mi ngi bëgg a ñëw suwaa nga gaaw récupérer sa soxna wala boo nga libéré ko si njëkk ak teraanga voilà léegi léegi ci biir ci biir récupérer boobu ci biir récupérer boobu euh, góor par exemple bu bu fasee bu fasee soxnaam tey soxna si toog mu ne ko fase naa la tey fase naa la ñetti yoon mhm. wala fase naa la juróom-ñaari yoon soxna si di jàpp idda ndax balaa idda baa jeex moom mën na koo récupérer léegi mais xam nga foofu sa daam benn affaire bu am solo boo xam te ni fàtte naa ko ci bi may expliquer fasem sunna bi mhm. mooy seede yi seede yi xam nga ñu baree bari jàpp nañ ni seede obligation la ci fase ba tax nga gis koo xam day wéet ak soxnaam ni ko fase naa ñu ni ko fase bi baaxul moom reconnaître na ko de ci biti hmm. daani waaw maa ko fase ñu ni ko non fase bi baaxul parce que amul seede demewul noonu de waaw day am de moom day am de demewul noonu loolu day am maanaam seede du farata wa ashhidu zaway adlin minkum hmm. loolu comme borom subhanahu wa taala li mu wax ci suratul euh, baqara si aya 282 fa idaa tabayatum bu ngeen dee bu ngeen dee jaayante hmm. na ngeen seede et pourtant man mën naa la jaay te kenn du yëpp dëgg la parce que seede bi dañ ko sopp Mhm. loolu moo tax jumhurul ulama jàpp ni seede ci fase ak ci fay li luñ sopp la mhm. dañ koo sopp dañ koo sopp kese mhm. moo tax ku góor ki bu dee daa fase jabaram génn ni maa ko fase dañuy jàpp ni fase na ndaw si bu demee ni léegi nag li tax ñu bëgg seede yi mooy ndaw si bu woote woo fase gi te amuli seede du baax su ne man de sama waay moo fase ñu woo waaj waaji ni mësuma kaa fase loolu nag quand même il faut seede yi am mais su fekkee waaji dañ ko woo téléphone ni ko ah soxna si de ñëw na fi nee na yaa ko fase mu ne waaw waaw maa fase yaa na jarul seede fase bi day tàbbi mm-hmm. kon bokk na mais nag bokk nañ ci li ñu mu ami seede mu ami mm-hmm. dëgg-dëgg maanaam mer rek sa jabar ni ko fase naa li ma sama nijaay daan wax ne kooku moom lu ko ko contrôler war naa jël ngir ba muy teg ci coono ba mu ci daj dajale wayjur yëpp mm-hmm. waroon na fexe buy libéré soxna si demaat ba ci wayjur yi toogaat ak ñoom ni leen ah daa bëgg a nga xam ni sa entre waxtaan mën na cee am ay mbir mën naa xew dox seen diggante loolu moo tax wallahu taala alam moom ala kulli xaal tant que amul doom man mhm. ngaa récupérer sa soxna exactement mhm. te récupération boobu soxna si amul si kàddu mhm. maanaam waa ji moom mooy jekk-jekk daal ne man maa fase woon damay récupérer waat sama soxna mu jeex la fan la jigéen di eh, xaraamee boroom këram ba faaw xaram ba faaw day <laughs> eh, am na xaram borom këram nga wax borom këram maanaam ki nga xam ni ki nga xam ni moo ko takk ki nga xam ni moo takk jabar waaw nan fan la ko jabar ji mën a xaraamee ba ba ba abadan. ba abadan bon mën a takkaat quoi. Euh, bokk na ci bu njëkk bi moom mooy ñu def liaan. liaan waaw liaan. mooy lan mooy ñoom ñaan ñu rëbboo mooy koo xamante ni dafa jiiñ soxnaam njaaloo mm-hmm. soxna si weddi ko. Mm-hmm. ñu dem ci kanamu juge bi. Mm-hmm. ñu wat quatre fois cinquième fois bi ñu woo rëbbum yàlla mu dal seen kaw boobaa dañ leen di tàqale te ba faaw lay doon. dañuy waat dañuy waat. ni waa ji waat ni waat naa ci yàlla di juruma waat naa ci ya non day waat waat yàlla daa njaaloo ndaw si dafa njaaloo dafa njaaloo yoon voilà ba ci quatrième ba cinquième fois bi mu ni bu dee li ma wax du dëgg yàlla na mm-hmm. rëbbum yàlla dal sama kaw après ndaw si tamit def noonu ndaw si def ko loolu juróomeel fo juróomeel yoon bi mu ni bu dee li ma wax du dëgg yàlla na merum yàlla dal sama kaw waaw ko defee ñu tàqale leen bu boobaa léegi loolu bu amee ci saasa après sëy boobu dañ koy tas sëy boobu dañ koy tas léegi te buñ ko tasee dootuñu dagananteeti ba faw ba faw ilaa yawmi diin mm-hmm. léegi nag am na yeneen yoo xamante ni imaam ngiru imaam Malik ñoom ñoo ko ci yokk. Mhm. voilà am na mhm. yeneen yoo xamante ni ngiru imaam Malik ñoom ñoo ko yokk. Mhm. mooy par exemple le fait que koo xamante ni danga nga da da nga ko takk. après ñu yëg ni daa ëmb. Mm-hmm. koo nga bàyyi noonu ci biir daal di jote ak moom kooku dalay xaram ba faawu mm-hmm. wala mais yooyu nekkul ci biir sëy bi yow mm-hmm. comme li nga ma wax waaw bu fekkee nag ci biir sëy bi la moom aman ah, dëgg-dëgg liaan kese laa ci teewlu mais nag am na ay jigéen yu baree bari yoo xam ne ne mën nañ laa xaram ba faawu mais liewul ak sëy bi mais soit da ngeen a bokk ci deret wala boog ngeen bokk ci wàllum gorom le wala boo ngeen bokk ci wàllum nàmpalante wala mu doon ñoo xamante ni par exemple dañ lay xaram mais mu àqatan lay doon maanaam ci waxtu dañ koy limité benn temps à un moment donné dina la mën a dagal. li ñu desee ci temps bariwul. ndax jigéen tey bu ñaanee baat ba sonn. wala mu mu mu saako fase mhm. ci borom këram ba ba sonn borom këram lànk bañ koo fase ndax yoon am na droit tas sëy boobu ak ndaw si ban maanaam comme da ngaa wax ni fase moom ci borom kër lay jóge mhm. léegi jigéen bu demee ba mënatul moom est-ce que moom na nan la mën a def ba génn ci sëy boobu wala moom waru cee a génn alaa kulli xaal axankay mën na ne mhm. mën na ne parce benn jigéen ñoo na ci yonent bi salaa salaam ni ko man de sama borom kër bëggatuma ko te damay ragal su ma desee ak moom euh, maanaam ma gàddu ay àqam maanaam dootuma ko matale yonent bi salaa ni ko ndax jardin bi mu la joxoon mi ngeeg yow mu ne waaw mun ko delloo ko loolu la ñuy tuddee ci sëy alxuloo mooy simmeeku mhm. mooy jigéen ji mooy mu daal di waxtaan ak borom këram ni ko man day sëy bi doyal naa ci hmm. léegi man damaa bëggoon li nga ma joxoon ma delloo la ko bu boobaa can gi mën na ko delloowaat can gi hmm. mën na ko jox lu gën a néew ça dépend ci li hmm. waa ji su ko neexee ni ko non non boo ma joxee 1000 francs baax na loo teg sama loxo ma daat dem loolu la ñu tuddee alxulon loolu nag borom xam ne dañoo wute ci ndax dañ koy jàppee fase wala wala ndax tas sëy la mais amaana borom xam-xam yi amaana ñu jàpp ni fasx la mooy dañoo dañoo firi sëy bi moo tax kooku dañoo wute aussi ndax bu dee fase la day dem trois règles bu fekkee dañoo firi sëy bi kese benn règle rek lay dem. Mhm. voilà <coughs> loolu moo tax. léegi léegi bu waaje bu waaje lankee ni moom du ko jël. léegi nag bu boobaa ñu dem tribunal. Mhm. bu dee suñu jamono yi moom tribunal lañ jëm ñu tas sëy bi par force waaj day mhm. ñàkk. wala boog su fekkee imam bi mën na def office de d'autorité te ñu nangul ko ko. moom mën na woote waxtaan ak waa ji. ndaw si moom lim ko joxoon mu delloo ko ko ñu tas sëy bi ala kulli xaal. mais kenn du forcer nit muy des ci sëy lu dul ni moom da cee nekk ak coobareem ba tey. Mm-hmm. voilà donc loolu la loolu moom mooy loolu moom mooy al euh, loolu mooy al xuloo mm-hmm. al liaan moom dañuy tas te da ngeen xaramante ba faw mm-hmm. par contre al xuloo jëmmi jamono man ngeen a bëggantewaat ngeen takkante waat xuloo waaw bu dee ndaw si moo si meeku mën nañ mais bu ñuy takkaat dañuy takkaat te xuloo gis nga amul fay li Mhm. amul fayli say bi day jeex ci saasi mhm. voilà donc bokkul ak li nga xamante ni talaq rajaa yi lay doon mhm. wallahu taala alam waaw kay léegi benn question bi nga xam ni moo ñu moo ñu dese pour pour pour jataay bii nii ndax li ñu ci waxtu wi question bi ñu dese mooy euh, nu ñu koy waxeeti sax léegi euh, sëy bi sëy bi bu fekkee ni wax nga ko dafa ndaw si fekk ndaw si nekk ci ëmb mhm. euh, bu bu ci jotee ak moom daf koy xaram loolu waa waa waa ngiru imam Malik ñoo ko wax mhm. loolu ndax mbir la moo xam ne boroom boroom boroom xam-xam yëpp ñoo ci d'accord non ñëpp d'accord uñ ci parce que xam nga dañoo nekk Sénégal foo xamante ni mu gars yi sax dañ koy wax très souvent mbedd mi dañ koy wax nit boo xasee xam mënatoo ko takk ba faaw non yooyu ay waxin la yoo xamante ni léeg-léeg la plupart du temps amul euh, amul cëslaay mhm. euh, ñëpp it d'accorduñ ci waaye xam nga ngiru imam malik ci wàllu fase dañ ci taral dëgg la et puis ci bari loo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu mm-hmm. te nekkul loo xamante ni tamit dañ leen koy bañal mm-hmm. voilà donc ñëpp ànduñu ci mm-hmm. am na ñoo xamante ni jàpp nañu ne bu booba ah, dañuy tas sëy bi bàyyi ba keroog muy am doom après ñu daal la koy may wallahu taala alam macha allah macha allah defe naa ni mbokk yi lépp loo xam ne mi ngi doon wër-wërloo ci wàllum fase lu ci baree bari euh, waxtaane nañu ko doonte nag euh, doonul loo xam ni luy jeex lay doon question bi may tëje rek nga baal ma ko bii mm-hmm. nga baal ma ko léegi góor mm-hmm. gi ni soxnaam su ma la naree xam yàlla naa xam sama yaay wala jigéen ji ni borom këram su ma la naree xam naa xam sama baay yu mel noonu daal jàpp su ma su ma naree tëdd ak yow daal naa jàpp ni sama baay laay tëddal wala mm-hmm. sama yaay laay tëddal boo bëggee maîtriser atte yi ciy wër-wër loo ñu ngi suratul la mooy surat 58 Euh, suratul mujaadila borom subhanahu wa taala daf ci am ndaw soo xamante ni dafa ñëw ci yonent bi salaa salaam. Mhm. Euh, moom jëkkëram moo nekkoon aw subnu saamit mhm. frère Seydina Ubaada ibnu saamit la mhm. yonent bi salaa salaam fekk waa ji loolu la ko wax su ma la namatee xam-xam sama ndey léegi na yonent bi salaa salaam bi ñu ciy wax noonu yàlla wàccee qad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau tahawurakuma léegi nag da ngay gis ni atte yi foofu la ñëw loolu mooy zihaar góor bu ko defee jigéen ji dañ naan ko léegi nag ken lol du fase so waxé sa jabar buma ma la namatee xam-xam sama yaay ñu bari japp nañu fase du fase wayé nak dinañ tek ci yow pen pen biñuy tek amu ci yow moy amoto possibilité jotewaat ak soxna si ludul ni da nga gorél jam ba pare su fekkee amo jam ludul ni mhm. da warnya woor ñaari weer yu tegaloo su dé amoo ko nga daal di juroom <laughs> juróom fukk miskin <laughs> hmm. so nag loolu lol tax nga man ko def hmm. léegi nag bu dee jigéen moo ko wax ku góor nag mm-hmm. kooku nag boroo xawee dañoo wutee ci ndax zihaar lañ koy tuddee ou pas mm-hmm. mais ala kulli xaal amaana kenn du ko jàppee zihaar am ñu wax loolu mm-hmm. am nañu wax ni déedéet ku jigéen ki tamit dañ koy teg même peine bi mais amaana déedéet ku góor ki daal la borom bi subhaanahu wa taala waxal fii ci aaya bi ndax wax ji mu wax wax ju ñaaw la ndax maahun na ñoom nekkuñu seen i ndey in ummahatum illa allaahi waladnahum seen ndey yi mooy ñi leen jur donc wax jooju wax ñu ñaaw la hmm. donc loolu moo la ciy tekk ci ay sentence loolu moo tudd zihaar hmm. donc zihaar wax nañ ko liaan wax nañ ko ak li muy waral xulon mooy simmeeku wax nañ ko ak li muy waral hmm. wallahu taala alam wallahu taala alam mbokk yi tabaarakallahu defe naa ne nag li ñu ñu cërale woon ci waxtu jeex na tàkk donte nag li ñuy waxtaane moom lu yaatoo yaatu la du jeex waaye li ñuy wax naan bu yoon jeexul incha allahu taala waaxu si du jeex sëñ Cheikh ñu bàyyi la nga tàggoo ak ñi lay seetaan ci Thiès Média. ah alhamdulilah donc ñu ngi jégalu borom subhanahu wa taala ci lépp loo xamante ni. wax nañ ko muy wax boo xamante ni peut-être lu ñu juum la parce que xam-xam moo demee noonu amul kenn koo xam moo am monopole du savoir lépp lu ñu juum képp koo xamante ni jàpp nga ne lii njuumte la incha allah defal ñu ci retour buñ ko mënee leeral publiquement dinañ ko def lépp loo xamante ni wax nañ ko mu jub ñu ngi ciy sant borom bi subhaanahu wa taala mhm. di jaajëfal mboolem suñu sëriñ yi nga xamante ni ñooñ jàngal alquran jàngal ñu xam-xam mhm. jàngal ñu lu baree bari si wàllu diine di gërëm bu baax a baax suñu oustaz suñu sëriñ sëriñ Babacar Dieye di mhm. nuyu bu a baax mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñooñ leen bége yàlla defal ñu tawfiq wallahu taala alam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin macha allah mbokk yi mi ngi noonu kooku mooy Serigne Cheikh Tidiane Kebe fa tabarakallahu di borom institut daara ji di jàngale alquranul karim waaye di jàngale diine fa tabarakallahu di yarkat macha allah di ku baax di ku yàlla baaxal dégg ngeen waxtaan bi nga xam ne rek euh, jooxal na ko te ma waxoon leen ci bi may door ni du jar ñu leen di wax moom mooy kan moom bu waxee rek di ngeen xam tabaarakallaahu moom mooy kan macha allah bokk ci famille xam-xam juddoo ci famille xam-xam yaroo ci màgge ci fa tabaarakallaahu ba tey wàccul yoon wa nga xam ne moom la ñu xamee woon ay maamam ak i maamaatam fa tabaarakallaahu ba nii ñuy nuyu bu baax a baax xaaji euh, siidi Sidi Kebe jàngkat bu mag bi Sidi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak sutura di nuyu Pape Wade Pape Ibrahima Wade fa tabaarakallaahu borom borom borom iPhone yi. Mm-hmm. borom iPhone yeeg yeneen téléphones yi fa tabaarakallaahu xam naa ko bëgg téléphone bu baax rek. Euh, da ngay contacter Pape Wade incha allahu numéro am dinañ leen ko bindal ku bëgg iPhone bu baax wala beneen marque téléphone bu mu mën a doon. incha allah boo con boo contacter Pape Wade rek incha allah dana la fekk ba fa nga dëkk tabaarakallaahu livré la ko gannaaw ba ngeen déggantee ba mu xam lan nga bëgg te lam lay livré fa tabaarakallaahu lu baax lay doon qualité lay doon Pape Wade yàlla na ko yàlla sàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi jaajëfal bu baax sunu caméraman xaaji euh, Abdou Mbacke fa tabaarakallaahu ak xaaji Ndeene Diop mi nga xam ne mooy sunu monteur ak PDG Thiès Média Ibrahima Jacques Dieng fa tabaarakallaahu di jaajëfal ñëpp di leen ñaanal yàlla di leen jox dig daje incha allah beneen yoon ci seen émission Al Karim ñu waxtaane diine ji tabaarakallaahu waxtaane yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleem di leen sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu